àddina wërngal këpp mi ngi màggal ay bés bi ñu jagleel entrepreneuriat fii ci senegal nag ndaw ñi lañu ñu beral loxo waaye faw ñu xam lan mooy entrepreneuriat. ñu ëllëg ko suba donc loolu la ñuy ci ci initiative la ñuy jëm pour lëkkaloo xoon DER. Euh, ADPME Jokolabs mi initié ak euh, ñeneen ak ñeneen nu ñu taxawee pour mettre des mesures pour jàppale leen. Euh, question bi nag euh, pour lan tey ndaw yi ndaw yi moom ñooy bu ñu waxee 35 pour cent de la population sénégalaise ay ndaw lañu moo tax important na tey ñu xool nan la ñuy defee ay mesures jàppale bi ak déglu leen surtout pour xool nan lañu mënee ñun. financiers yi partenaires yi taxaw pour euh, pour teew euh, li ci important aussi li ñu war a souligner mooy territorialisation territorialisation mooy bu ñu dem rek dakaar ndax ñi ñu bëri ñuy jógee di dem ci région yi la ñuy jógee nan foog ñu tàggat leen itam te gunge leen ndax ñoom ñoo ëpp ci lim ci dëkk bi ndaw ñu li ñu soxla mooy am loo xam ne bu ñu xëy suba tey mu leen si jàpp am xam ni dañ leen tax ñu permettre ñu am yaakaar Sénégal bi ñu nekk sa à dire mu doon ñu comprendre li ñuy def lan la fan la ñu bokk et cetera beneen fànn bi mooy aussi former leen beneen fànn bi mooy aussi soxla nañ assistance donc DER aussi lëkkaloo ak yeneen organisation orga euh, dispositif état mun a répondre si question boobu noonu après ñu soog a ñëw si financement bi donc loolu moo waral DER tey jii moom en tout cas mu lépp lu muy def mu def ko pour jeunes yi ak pour jigéen ñi am na yeneen dispositif état yoo xam ne aussi dañuy intervenir pour góor ñi nga xam ne il faut jigéen ñi amuñu limite d'âge limite bi si góor ñi la mais jigé xale yi ak jigéen ñi amuñu aussi historique bu njëkk ba gis nañ ni que tey ji pour am financement dafa metti woon si ñoom. ay saafara nag ngir ñoŋal entrepreneuriat fii ci réew mi bari na lool. waa Jokalante yàgg nañu si li ñuy dox ni te li ñuy dox USAID ñoo jàppale leen si ak agence yi nga xam ne état bi daf ko taxawal muy ñoom DER ADPME ñoom ñëpp ñi daje tey nekkat ñin il faut te ñu ko yàgg di def aussi mais ren it ñu ne ñun li ñuy dox il faut ñuy xool naka lañ ko gën a mën a mu gën a mën a fës ndax li ñuy wër ñoom mooy naka la ñuy mën a dimbali xale yi ak nit ñi nga xam ne dañuy bëgg a dugg ci koom-koom naka lañ leen di mën a jàppale pour li ñuy yëngu ñu mun ko def ba mu sotti loolu mooy euh, li tax ñu daje tey mu ñu si war a waxtaan it semaine bi yëpp loolu nag lu am solo la soo amee dëkk bu mel ni suñu dëkk ñi xam li xew ci monde bi xaw li xew fii maanaam gune yu ndaw di dem di jëli ay pirogue ak loolu loolu kat mooy war nañu seetaat suñu bopp gën leen expliquer que lii am na soo leen amee ay projet mun ngoon ñëw dajak ñi seet naka lañ leen di jàppale si loolu pour projet yooyu ñu mun ko réaliser loolu lañu doon waxtaan ñun ñi nga xam ne nag dañuy yëngu si affaire koom-koom muy secteur privé nee nañu solution yi bëri na baax na ñu dajaloo ko ñu dajale leen pour que li ñuy def comme action mu gën a efficace déglu aussi ñii nga xam ne ñoom nga bëgg a dimbali soo bëgg dimbali nit ki surtout jeunes yi war nañ leen gën a di mën a déglu. ay bés bi ñu jagleel entrepreneuriat tàmbali na Jokalabs ànd ak ay partenaire am juróom-ñeenti at ngi nii. ñuy si liggéey ren nag thème bi mooy entrepreneuriat des jeunes innovation et croissance économique.